tomb bi ñuy waxtaane tey nag day loo xam ne dafa yitteel ñu bari ñu di ko jàmbat te muy loo xam ne lu jafee mucc la ndax wàll goo dem fekk fa mbokk nit ñi dañuy fàtte yàlla fàtte liñ fi indi te boo fàtte yàlla seytaane jël place ci sa xol te la defloo ak bëggam te bëggu seytaane dara dëppoowu ci lu sunu borom gërëm jamono ji ñu toll nag nit ñi dañoo mel ne ñu nekk ci kursu maanaam ci rawante akub jongante ci jamono ji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 سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tomb bi ñuy waxtaane tey nag day loo xam ne dafa yitteel ñu bari ñu di ko jàmbat te muy loo xam ne lu jafee mucc la ndax wàll goo dem fekk fa mbokk nit ñi dañuy fàtte yàlla fàtte liñ fi indi te boo fàtte yàlla seytaane jël palaas ci sa xol te la def loo ak bëggam te bëggu seytaane dara dëppoowu ci lu sunu borom gërëm jamono ji ñu toll nag nit ñi dañoo mel ne ñu nekk ci kursu maanaam ci rawante akub jongante ci jamono ji ku ne bu sañoon moroomam des gannaaw loo doona ndoog nit ñu di la yàq ba doo leen ci féete kanam looy defandoog nit ñu di la fakkastal ba doo leen ci raw loo am te amuñu ko ñuy defi pexe ngir xañ la ko ba nga yem ak ñoom noo mel te meluñu ko ñu di la gàkkal ngir nga yées leen dangay am jom di góor góorlu liggéey bu ne nga jaar ca ba yàlla dénk la alal ñuy lijjanti foo ko jëlee di ko xajamal yàlla wërsëgal la poste liggéeyukaay ñu ne mérito woo ko yàlla may la daraja ñu yàq sa der léegi domaine boo dem bu mën a doon danga fa fekke ak kujje te kujje gi du doon ak rawante wala gënante waaye ak yàqalante lay doon kenn bëggut moroomam dem tàmbaleel ci kër gi soxna yi ku ci sañoon yow dong la sa njaboot di tekki bu sa njaboot yaa fuusee ba siqiwuñ benn jéego nga jiiñ ko sa moroom demal ca société ba walla entreprise ba bu féetee kanam bu ñu sañoon nga am ay jafe-jafe ba ñu jël sa place boo bokkee nit lu ngeen di yëngu bu sañoon liggéeyam di dox yow nga yàqule boo baaxee bañ lay tagg sa moroom jëni melut di la lalal ay ndëgg sërëx waxtu wu ne ñuy lijjanti ci loo nekk looy def loo am foo toll buñ la xamalut di la sosal ngir nga wax sa bopp ba ñu xam la ba ñu xam say mbir mbokk yi ñoo ngi dund jamono joo xam ne nit ñi aada woo nañ faw di wax boo amee ñu wax bu ñàkkee ñu wax boo baaxee ñu wax boo bonee ñu wax sëgam nag faw ñuy wax ak def lu lay yàqal waxtu ne kon li ñu lay dénk mooy na la loolu yokk jom te nga gën a góor góorlu bu baax ba doo des gannaaw nekkal ci li la war tey muñ doyloo yàlla te bul def kenn lu bon yàllaay maye yàllaay xañe njariñ ak lor ci moom rekk lay bàyyikoo te ku maandu la te nga xam ne li muy dogal ku ci àndul faw mu sonn يالنا نو يالا دولي سوتر دفر سوني خول نو بغنتي ينتي جام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى